actuellement moom gisaguñ suñu bopp moom non non dara ñëwagul fi mu ne nii moom tabaski gi moom ba léegi ne gisaguñ si suñu bopp daal yëngoogul daal yëpp xate xare moom tàmbaleegunu moom ñun taximaan yu mag yi xalaatuñ koo def ndax bu fekkee ne xar mi moomoo ko nun dinañ la jàng-jàng ndax nañu police yi jàngee nit noonu la ñuy jàngi nit boo dee taximaan bu mag yow moomee xar mi boo ko moomut nun dinañu xam ne yow xar mi moomoo ndax yàgg nañ ci loo yàgg nag da nga ciy am loo xam ne du doon defet ci yow du si ñàkk sax du si ñàkk parce que yenn saa yi nga gis ko xamante ne day sàcc yeb looloo nga yeb ko mais nag yow am na am na façon yeb yoo xam ne buñ la ko yebloo yow mi taximaan ji yaa dawal sa xel xam ne lii moom xel nangu ko am na côté yoo xam ne buñ la fa jëlloo xar waaw comme tey ñi nit ñëw guddi ni la kaa jëlal may xar dem foofu lëndëm amul lampe amul dara nga ñëw mun la xar yaa ngi nii fekk mu tënk ko tekk ci benn lieu boo xam ne da lëndëm da bu indice daal kooku da ngaa xam xalaat ni kii est que li ngay def wóor ndax bu fekkee moom fu leer nga koy jële mais am na milieu yoo xam ne boo fi jëlee xar ak heure yi yenn heure yi war nga xam ne kii wóorul daal. loolu moom mënta ñàkk ndax boo dee xale door a taxi am na yu bari yoo xam ne doo ko xam waaye nun ancien yi nga xam ne nun danoo yàgg a taxi te jub du nu dugg ci yooyu. ñu gën a moytu daal gën a vigilance daal maanaam gën cee bàyyi xel daal parce que liggéey boo gis rek am na risque liggéey boo gis am na risque waaw maanaam bëgg xaalis moom bu mu la tee nga ngay dawal sa xel daal si li ngay liggéey. waaw. xale li ma leen di digal ñu góorgóorlu ndax góorgóorlu mooy tax a dem amab yar boo dee gone di liggéey da ngay amab yar ba pare di moytu yu bari parce que li lay tardeel rek ngay xale di liggéey booy boo moytul loolu waaw lépp lu lay moytu rek yaa ngi déglu ma nii ngay gone di taxi yow moytul loolu mooy yëfi nit.